mbokk yi di mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ci katanu yàlla subhanahu wa taala ak mbaxam lañu delu seetee fa tabarakallahu fi ci Safina TV di séqati ab jotaay te mooy jotaayu laayante biir ak fàttalenteeg delloo séenti ci li ñu bokk muy lislaam di ziyaara bu baax sunu kilifa gu tedd gi sunu imaam bu baax bii di imaam El Hadji Thierno Hamid yéen Ousmane ñu koy ñaanal rek li ñu koy mas di ñaanal te mooy yàlla subhanahu wa taala yàlla na ko mottalil ay yéeneem ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu bokk fekk lépp boole tal ko jariñoo ko àdduna ak alaxira di ziyaara noonu it sunu directrice madame Gange di Adja Ba fa tabaarakallahu di yéege ziyaar bi it ba ca ku tedd ka tabarakallahu di baay alxaaji Thierno Mouhamed Bachir Muntaga daha Cheikhu Umar ca Louga ñaan yàlla subhanahu wa taala dollil nit ci moom wér ak wérle mucc ak mucc léeg nangul ko ay ñaanam ci ñun nangul nu it sunuy ñaan ci moom ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah, mu mel ni nag dañu nekk ci weer di weer wu am solo ñu di ko wax weeru rajab wolof di ko wax ndeyu koor bu fanam yu barkeel yi jeexee ñu dugg baraxlu wolof di ko waxee noonu arab di ko wax chaban bu fanam yu barkeel ya jeexee ñu tàbbi ci ramadan te mooy weeru koor yonent bi daan wax ni weer wii di rajab mooy weeru yàlla subhanahu wa taala weer wi ci topp di chaban mu ne mooy weeram mu tànnal nu weeru koor ni mooy seen weer yéen sama xeet di yéen jullit yi di yéen ñi gëm ñi yàlla weer wii nag mag ñu baax ñépp di ñu doon roy yonent bi ba ca saxaaba ya ba ca moom ci weer wii lañu daan tàmbalee di xalaat nu ñuy waajale weeru koor eh, ba tax na ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala ak i mbaaxam di ciy coobareem ak i moom yi dogalam lañu mayeti ñu fekkeeti weeram bii di weeru rajab mag ñi di ko waxe ci wolof ndeyu koor barax lu topp ci koor topp ci tax kaan annabiyu sallallahu alayhi wa sallam yadcu bi buluugi ramadan fa kaana ida daxala chahru rajab qaala allahumma بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلى الله عليه وسلم ينتبه عليه الصلاة والسلام مودان دف سويروي ترو بل خلاتم يب دفي أبي دولة كور جينيو مودان نيان نكنان يالا تسام باخ نغنو فيك كلو تسويروي دي راجب نغ لي نيان نغ فيك كلو نو بارخ لومي تي توب دي شامبان تنغ جوتو لينو نو فيك رمضان man la ko daan ñaane maanaam àdduna bi dafa bokki ci ni mu bindoo meloo ni loo fiy séentu agsi na àdduna bindoo noonu te lu agsi wëy na looy séentu rek jàppal ne si na te lu agsi wëy na tax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan def fu weeru rajab masaan tero mu ñaan yàlla subhanahu wa taala mi ko yónni ni ko yàlla buur bi di yow sunu boroom fekkeloo nga nu rajab ci sa mbaax di sa weer wii ànd kiy ormaam weer wi dafa ànd kiy orma yàlla nag nu barkeelal fanam yu barkeel yi ñu fekkeloo te may ñu nii nga nu ñu fekkeeti ko ñu fekkee ko ni baraxlu amin noonu la ko yent bi daan ñaane di weeru Shaaban lëma ma saale ca nag booleel nu ca barke may nu ñu fekk si ci sa mbaax subhaanaka yow yàlla weeru koor te yàlla nag nu nangul sunu ñaan ak sunu jaamu la امين باتخ وكان السلف الصالح تموي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وتابعونا نعمت يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان فإذا بلغهم إياه دعوا الله عز وجل أن يتقبله منهم قايو باخيه di sang ya daan ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa ak ña topp ca ñoom ridwanullahi alayhim ajmain ñoom nii lañu ko doon ñaane ba ci sunu mag ñu baax ñi ba ci ñun tey di njaboot ci ñoom yal na yàlla subhanahu wa nangu leen sunu ñaan ñu ci dugalal nu ko ci ñaanuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nangu leenu ko ci làmbinam bu tedd wa ci daraja yi boppam alayhi salaatu wassalaam su ko defee mu nekk moom weer wi di ndeyu koor ñu di ko wax rajab mu nekk di weer woo xam ni yàlla moo ko tànnal boppam def ko muy weeru boppam weer yep yalla len mom waye li wolof di wax nan xar yep yalla len mom waye am tebeske ci raw moy rajab ci bir weer yi weer yep yalla len mom waye rajab bi la tan def ko muy weeram ba taxna moy mooy weer wi nga xamni istafahu istafaahu llahu azza wa jalla وفضله على جميع الشهور نحكت نقرأ في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى فضل بعد مخلوقاته على بعض وفضلهم وعظمهم ndeyu koor nag di rajab mii nga xam ni soob na yàlla muy jël yennat di ko gënal ci kaw yennat def na ko ci malaayika yi di ko tiimale ci kaw yennat def na ko ci yonent yi def na ko ci mbindéef yépp def na ko tamit ci nit ñi noonu la ñuy tànnee weer wi di rajab subhanahu wa taala màggal ko lëmase ko ay orma mu bokk ci weer maanaam ci biir fukki weer ak ñaar yépp yàlla leen moom bu ci nekk ak darajey boppam yàlla def ci jukkiwaat ñeenti weer ni ñeenti weer yi ñooy ñeenti weer yi nga xam ni na ngeen fexe ba bu leen ci toggoo bàkkaar fala tadlimu fihinna anfusakum bu leen ci def bàkkaar mukk ndax ku ci def bàkkaar dañ koy ful waliyaasu billah bu ci mbugal wareet dañuy ful mbugal ma comme ku ci def tuyaaba dañ koy ful te rajab di weer wi ci weer yooyu la bokk maanaam tam xarit ca la Eh, weeru diggi cala diggu tabaski ak weeru acc ak weer wi di rajab ñeenti weer yi lañu yàlla joxoñ ci alquran ni fala tadlimu fihinna anfusakum def bàkkaar bone na ci weer yëpp bone na ci bés yëpp waaye ci biir weer yi la rawe nag bu leen ci def goo mukk bàkkaar su ko defee ndeyu koor di rajab mi nga xam ne yàlla ko tànnal boppam subhanahu wa taala ci biir fukki weeram yeeg ñaar féete woo ko def ko muy weeram fa tabaarakallah sunul xaaliqiina noonu la weeru rajab melawoo ci biir fukki weer yeeg ñaar di fukki at yi lëmm ak di ñaar ñaar fukki fan yi astafirullah ñaar fukki ñaar fukki weer defe naa ak ñaar déedéet fukki weer ak ñaar mooy at waaw kay waaw fukki weer ak ñaar mooy at su ko defee yàlla jukkee ko nag ci biir mboolem fukki weer yooyu ak ñaar nag def ko mu nekk weeram تاخ يونت بي علي سات ادو وخني فضل رجب على سائر الاشهر كفضل القران الكريم على سائر الكلام يونت بي نانا بو بغي خام مانام درجه وير دي رجب نمو تول اك نكو يالا تولال نانا ميغي ملني ني القران غني ci mboolem wax yi xam nga alxuraan waxu sunu borom la nee na ni alxuraan gëne ci mboolem wax yi mu ne noonu la ne weeru rajab bii gëne ci mboolem weer yi sallallahu alayhi wa sallama su ko defee rajab di ndeyu koor noonu la gëne ci mboolem weer yi yàlla nag la soob subhaanahu wa taala soobee ko ci sañ-sañam di sañ defam di ci ni mu ko waxalee boppam subhanahu wa taala ni faalun la lima yuridu lu ko neex lay def lu ko neex lay def ca na mu ko soobee te kenn du ko ñu lu tax mukk waaw mooy taxawali ñépp ëllëg ca kanamam képp kenn ku ne mu sañ la wax ni lu tax te ku mu ne lu tax di nga wax ko lu tax <laughs> buur baa ngoog di borom bi subhanahu wa taala ndeysaan mag ñu baax ñëpp boo ko tuddee rek dootuñu ànd teg seen sago ndax cofeel gu ñu am ci moom ak màggal ga di màggal ga ñu koy màggal boo demee sang bu tedd ba ñu wax uh, sayyidil arabi ibn saih ca Rabat ca Maroc ci ponkoli cheikh yi la bokk lamu konan bakke di الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعذ ثناه هادي العباد إلى سنا عرفانه لولا التفضل ما اهتدوا لسناه ملك الملوك وحكمه في خلقه ماض فلا حكم يرى لسواه وهو السميع falam yazal mutaqaddisan zaatan wa wasfan fi kamali غناه سبحانه القدوس في حضراته عن كل ما لا ينبغي لعلاه ndeysaan di tagg yàlla tagg goo xam ne danga koy boole di ko wéetal ca moom nguuram ak kaweem gaag sellalam ga maam Abdul Aziz radiyallahu taala anhu maam Cheikh El Hadj Abdul Aziz ku bëggoon way wii la ka وينتو فمو fu mu باتم ak galanu baatam nga xam damay wax ni du baat bu neex kessa kessa waaye leeru yàlla ci lëmasu galanu baatam ba leeru yàlla subhanahu wa taala moo ci lëmasu moo tax nga daan dégg mu ko daan woy noonu bu ma saan wéet wéetaayam boobu li nax rek cofeelam ci yàlla ndax moom foo tudde yàlla rek mu bëgg xam allahu akbaru la kabira siwaahu جلت محامده وعز ثناه baatam ba nag moo dàq fuuf sama baat bi damay indi rek na mu ko doon woyantoo rek baatam bu neex boobule nga xam ne boo ko dee déglu day mel ni day jóge kër kaw asamaan baat ba di wàcc si ci kaw suuf radiyallahu taala anhu allahu akbaru la kabira siwaahu جلت محامده وعز الثناء هادي العباد إلى سنا عرفاني هادي العباد إلى سنا عرفاني لولا التفضل ما اهتدوا لسناو ملك الملوك وحكمه في خلقه ملك الملوك وحكمه في خلقه ماض فلا حكم يرى لسواه وهو السلام فلم يزل متقدسا ذاتا ووصفا في كمال غناه وهو السلام فلم يزل متقدسا ذاتا ووصفا في كمال غناه سبحانه القدوس في حضراته عن كل ما لا ينبغي لعلاه نقول la ko وين تفهم عبد mam abdu ak baatam bu السلام فلم يزل متقدسا ذاتا ووصفا في كمال غناه سبحانه القدوس في حضراته عن كل ما لا ينبغي لعلاه الله أكبر سبحانه وتعالى maam Hadj Abdoul Aziz amul woon sago ci buur bi di Mawlana tabaraka wa noonu la ne ñàkke woon sago it ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñàkkee ko noonu it sago ci barzaqul baradix taajul arifina sultaanul awliya radiallahu taala anhu mu bëggoon ko lool nag ak galenu baatam bu neex ba na mu ca daan dale fa tabaraka allah asnul xaaliqina nga xam ne sang ba di سيد العرب ابن سايح تا ربا تي بونكو لو شيخي موكو نوسي نونو جوبلو كوني كان بوروم اكنيانكو فتبارك الله وحسن الخالقين بور بي دي بوروم بيغا خامني موي بور دي بوروم سبحانه وتعالى كوني فيني بورغا تاي با ادونا دي ادونا با باي كوني فيني بورغا ريك ku dul moom xamal ni dañu laa abal baat bi waaye doo buur dañu laa abal baat bi ba tax laa di wuyoo buur moo tax mawlaay ahmed yàlla na ko yàlla fayal xeet wi di sajidi wa mawlaaya di sayid si ahmed tijaan si almaktuumu radiallahu taala anhu keroog ba mu nuy firil jawharatul kamal baat bii di allahumma mu ngi ko firee yow buur bi nga xam ni bokk na ci bàkkaar yi gën a màgg nga may sa jaam nguur ñu di ko oowee buur noonu la firee baat buur bi nga xam ni bokk na ci bàkkaar yi gën a màgg nga may sa jaam nguur ba tax ñu di ko oowee buur ndax yàlla rekkee buur di boroom soog ni sàlli ni nga baaxee yow yàlla dik mbaax goo xam ni laajoo ci njëg dik mbaax goo xam ni kenn ñaanu la ne la baaxal waaye dafay noomel ñu ngi lay ñaan sa mbaax googu wasallim nga booleel nu ko sa dal ga te mooy dal ga nga amal ga ca sa ëtt di dal goo xam ni day wane ni yëngu sax xaju ca kon fitna ak coono àggu fa kon baax googu ak dal googu lañ lay ñaan nga maynu mooy salli wasallim ji muy wéttalee ndi ci këru nattu bi di këru coono gi di këru fitna di këru jaaxle di këru wujje di këru noonook bañanteeg xeex ñu ngi lay ñaan sa mbaax googu ak sa dal googu nga may nu muy wéttaleen di ci kër gunumel di àdduna ki nga xam ni jëmmam ci nit ñi ci biir nit ñi mooy wane di dégguloo ko xamloo ni yërmande rekk tax nga bind ñépp wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil nga ko wax kon allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati ah, لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم سانغ بانغوب موتاخ كون في واخ بور ريك كودول موم بن تي نيار ييغي لاي خار تي سوري وونيو لا تي بولا تي خيل بس ريك dalé ko na ci sa kaw yow mi ñu naan bour kérok nga yek ni do won bour ñala doon wax bourit xam ni xam nga kuy buur fëri ju wóor ji di càppaacuri te mooy ngënk mii di mawlaana tabaraka wa taala moom rek kay buur ndax benn ci ñaar yi nga xam ne ku mu ci ku ci benn dal nga xam ne doo woon buur benn du ko ca dal moo leen amal subhanahu wa taala ba tax leen a mën a jëfandikoo ci ku ñu naan buur te doo moom baat yooyu di ñaari baat mooy folliku ak dee ku ji fi buur benn ci baat yi bu la dale nga xam ñu doo woon buur ña doon wax buur it xam ñu doo woon buur ku ñu finaan buur tey te du yàlla boo follee ko yëg ca saasa ni ndakati doo woon buur boo xëyee faatu it ñu sang sang tëral jullee yanu la Yobu gas suul wàcce suuf ci sa kaw jal nga xam ni doo woon buur ñala ko defit xam doo woon kon sunu borom rek subhanahu wa taala mooy buur di borom cay dogalam ya nag di ca sañ-sañam ya la ni dogalee di ca namu ko soobee mu tànne ko ni ñennat tiimele leen ci kawi ñennat tànne ko ni it lennat gënal leen ci kaw yi leen natt muy mel rek ni نقرأ في القرآن الكريم أن الله عز وجل فضل بعد مخلوقاته على بعض وفضلهم وعظمهم دي تي ريك لي نيوكاي جانغي تي تيرم بي دي القرآن الكريم دي نيموكو تي جونجي ان الله اصطفى من الملائكه رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير إن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير buur bi di boroom bi nga xam ni mooy aji dappetoo ji dégg di aji dappetoo ji gis subhaanahu wa taala nee na soob na ko mu tànn ci biir malaayika yi ak ci biir nit ña jukkee ca ñoom ay ndawam yónni leen ba tax na wa min hadihi al aya naalamu anna allaha azza wa jalla faddala bayna alma bayna maxluqaatihi ñu mën cee dégg ci waxinam bii di ci xamee ni naka buur bi di mawlaana tabaraka wa taala jagleel nay ngëneel ci biiri mbindeefam yi ñennat ñoom tiimee ko ne ñennat di xawa a mel ni rek li wolof di wax naan ah ku ni ku ni ñëpp yam ah njool ma la neexul waaye xam nga ni ñëpp yamunu batayit wa faddala mom subhanahu wa taala bani adam ala al hayawan wa nabaat nabat sop nako mu jël doomu adama dogale ci nit muy sangu bépp ndundut niki jurgi gi ni ki garab yeeg gàncax gi ni ki doc yéeg lu dul nit ni sangam di dëppoog la sunu maam ju tedd ja waxoon di maam Cheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu taala la mu noon ñett rekk a am euh, jaam sang ak sangu sang <laughs> jaam ak sang ak sangu sang nit la yalla dogale ci mom moy sangu aduna, nit moy sangu aduna, waye sang bi di sangu aduna di nit yalla ay sangam dan ci jangale ni kon di topoto sa jam ba sa sang merela ku du ko def <laughs> hmm? di topoto sa jam sàggane sa sang ba sa sang mere la nee na ku nite du ko def muy la yonent bi daan wax ne wa salam ya ibn adam atiu rabbaka fatusamma aqila wa la tusihi fatusamma jahila yow doomu aadama mi tax ñu nan ni topal sa borom ñu tudde la ko am xel ñak ko top top sa banexu bakkan ak luy niroog tooñ kook moy ko ñu tudde la rek koo xam ne dafa réer صلى الله عليه وسلم su ko defee boo sàgganee sa bopp nag ba di mooy ñu tudde la su boobaa ku réer ku amul ka wala ku xamul ka fu mu jëm xanaa di tëñëx tëñëxi rek rek ni ku àndul ak sagom wolof nag nee na dof de du teere fa yi bokkam ndax ku dul topp yàlla ab dof nga rek am ñu ko waxee ni gaal du teer maanaam gaalug dof de du teer am ñu ne ah kay dana teer ko fa muy teer moo lul neex bokk wala billah mhm. ba tax na ñu xamee noonu déggee noonu solo ak i maana yi nga xam ni weer wi làmboo na leen te mooy weeru rajab yàlla nag bu waxee ci weer wi ak wu mel ni moom ni fala tadlimu fihinna anfusakum bu leen ci toggoo bàkkaar moo lay wan ne loo ca daan jaamu yàlla yokk ko te weeru nangu ñaan la teg ci man daan naa ko tudde sax weeru promotion naan weeru promotion la lu tax yonent bi wax na ci hadis aleyhi salaatu wasalaam ni ku ci woor benn fan ngir jaamoo ko yàlla ci weer wi rek la loolu am di di nga am yoolu ku woor ñetti junniy at te ci weer bi rek la am amul ci beneen weer moo tax ma ne weeru promotion la hmm? kon nag yàlla maye na ku bëgg jëlal yonent bi waxaat na it ne akrimu rajab yukrimkumullahu yawmal qiyaama teral leen rajab yàlla teral leen yawmal qiyaama ndax inna shahra rajab shahrun azimun rajab weeru màgg la teral leen ko yàlla teral leen yomal xiyaam noo koy terale gën cee bàyyi xel sa bopp ci topp yàlla di ci nafaraat alquran di julli di ci tudd yàlla lu bari di ci woor nee na noonu lañ koy terale ku ko def rek yàlla teral la yomal xiyaam waxaat na it ci beneen xadis ni am na dex gu nekk ca aljanna moo gën a weex meew te gën a tem-temi lem nee na dex googa ma nga ca aljanna daw weer wii la ko yàlla tudde dex ga rajab la tudd mu ne ku ci woor benn fan xaw ma ñaar xaw ma ñett daal aw kama qaala nee na ku ci woor benn fan walla ñaar wala ñett comme ni mu ko wa ca na mu ko waxee rek nee na di nga naane ca dex googa mooy wane rek di nga dem aljanna kon yàlla nu yàlla defal dégg ak topp te may nu ñu jariñoo njàngale yonent bi sallallahu alayhi li ñu ko fekkee it te weeru nangu ñaan la yaa yàlla may ñu fekkee ko ni baraxloo koor ak weere ca topp yépp te yàlla may ñu ci barke bi nga xam ne ak orma yi weeru rajab làmboo jàngooro jii dëgër boppa lool di coronavirus yàlla na ko fi yàlla jële ci kattanam mag mbaaxam ci lu gën a gaaw xef ak xippi teggee ko ci kaw suuf si yóbbu ko fu mu dul daleeti kenn ñépp mucc ci bijaahi sayyidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam ñi ci jot ñi mu jot a dal ñu jaare ci wuy ju sunu borom yàlla na seen njot yàlla na yàlla tàbbal leen aljanna gannaaw bu mu leen jéggalee yërëm leen ñi ci feebari nekk na ci hôpitaux yi yàlla leen yàlla wéral ñu wér jàmm mu tofal ci njéggalam ak yi ngërëmam ñi mu dalagulit yàlla bu ñu xam na mu mel yal nañ ci yàlla mu boole musal te boole ci njéggalam ak subhanahu wa cofeelam ci ñun boole ñu nangul lépp luñ ko jaamu ak lépp luñ ko ñaan bi jaahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu